état d'urgence ak couvre-feu yóbbu ñenn ci askan wi ci ay jafe-jafe yu méttee métti ñeel wàllum paju rawati guddi gi waa Croix-Rouge taxaw temm ci jàppale leen indi ay daamaar rawati ay ambulance ay yeneen i jumtukaay jox leen ay numéro téléphone di leen jëli di leen yóbbu honorable député laxaat Lahad Seck Sadaga ñëwoon nemmeeku si leen indil leen ay xéewal waaye rafetlu lool seenub liggéey. li ñu yëkkati mooy euh, li ñu def mu doon lu am solo loo xam ne daw na sunu yaram. Euh, nit ku ne nit nga as gor nga soo gisee lu baax da nga ca war a jàpp ñu gis ne ñoom taxaw nañ ci dëkk bi mais ñu nit ñu wax ne nañ ñëw seet si leen parce que yëg nañ ne am na ay nit yoo xam ne ñi ngi am doom ci biir ambulance yi te ñoom ñu ngi ci àll bi di dox guddee bëccëg te xam naa ne sax xëy na euh, dëkk bi bàyyiwuñ xel ci ñoom pour jàppale leen ci reer yi ñu war a yóbbu foofu ak nangam parce que ay volontaire lañ moo tax tey ñu ne nañ indi leen reer jàppale leen indi jàppale suñu bopp Euh, indi au moins euh, madar ak ordre euh, de service pour oto yi nga xam ne moom la ñuy yor ak raxasu yeeg yooyu moo tax ñu def ko di wax ne ñu ngi leen di féliciter ci taxawaay bi di ñaan ministre bi nga xam ne moo yor wàllu wér-gi-yaram muy ab Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi koy féliciter ci taxawaay boobu mais nag ñu ngi koy ñaan mu gën leen a jàppale gën leen taxaw di ñaan président de la république ñu xam ne ay mbir la yoo xam ne couvre-feu bi tax na am ñu am jafe-jafe seen kër yi mais am na ñoo xam ne génn nañ pour jàppale ñooñu ñooñu it nañ leen bàyyi xel jàppale leen ci mbooleem li ñu def ñu xam ne euh, ay risques yu bari ñu ngi ci mais teewul nangu nañ ko te loolu yombut kon ñu ngi leen ci félicité di ñaan ndimbal yi dikk ci dëkk bi nañ ci gën a jàppale ñi nga xam ne ñooy waa Croix-Rouge di ñaan lépp lu ñu def dafa jot tey ñëpp ba ci xel di wax it ne même politiciens yi fi nekk ñu am ba tànk ak ñu ko amul ku am moyen demal nga jàppale Croix-Rouge lu tax mooy boo leen jàppale sa bopp nga jàppale man nag fas naa yéene gunge leen taxaw ci seen pegg fas yéene leen a jàppale. mu nekkoon jotaay bu am solo moom Mamadou Diop moom mi nga xam ne moo jiite Croix-Rouge bu département bu Mbacké di wax ne jafe-jafe yi bari na waaye pas-pas bi moo ëpp doole lépp. gis na ne fii suñu gox Touba Mbacké ñu bare bare bare bare guddi gi ñoo ngi dégg ni ñoo ngi am ay trof trof ci seen wir yaram ñii ñoo ngi bëgg a mucc amuñu fu ñu muccee ñii yeneen feebar dana leen yu bokkut ak mbas mi fi nekk tey yooyu da daa dal nit avant lii su musaa dal nit taxi anke kër oto yi am ni oh, kër yi am na oto ak leneen ak leneen waaye fi ne nii gis nañ ne oto bu jóge ci kër yóbbu malade jafe na ci lañ waxee ne croix rouge en tant que auxiliaire au pouvoir public association humanitaire dafa def idée boo xamante ne bii day taxawal tudd évacuation d' urgence mooy suñuy moyen bopp nañu dem wut suñu oto su oto bi na am yàlla jox na ko ak beneen bun ñu mën a am ak carburant fexe suñuy moo yoo xamante ni bii Touba ak Mbacke ñëpp dañ ko am képp koo xamante ni amati nga problème ci guddi gi nga woote si ñu jël si la foo mën di nekk yóbbu la hôpital bi nga bëgg a dem ndax li tax mu bari mooy laa moyenne guddi gu jot li gën a néew soo ko doon calculer moyenne bi dinañ am 15 évacuation fukki évacuation ak juróom par nuit. te wax dëgg yàlla rafetul nañ jëfam ndax it doon na wax avant muy ñëw. dinu jaarale fu baree baree bari bari ba fa mu jaarale muy Tuubaa ca kanam yàlla dogal mu antu lu bare bari ñoom tam ñu jàppale na ko moom mu ñëwaat tey def lii indi xéwal du mel nii kon kii day wane ne yëg nañu xam na liggéey bi fu mu toll ci ëpp nag ñiy muccul jigéen ñi am doom ah, ndax ah, ba bërki démb rek ñoo ngi ci téeméer ak ñett évacuation te téeméer ak ñett soixante-dix pour cent yi ñuy am doom la ñu si des ay tension leen di daaneel ci guddi gi mag ñi ñenn ñi am na ci ay lakk-lakk ñenn ñi ay fracture ñenn ñi ay xale yu yu ay asthmatique ak yeneen ak yeneen te yooyu mun ta xaar yooyu ci ëpp gis nañ nañu baree baree bari ci ñooñ sax ci oto bi wala ci yoon wala na muccee lool li ko waral mooy kii dafa soxla woon ndimbal dañuy xetti waaye duñ ci loro moo tax guddi itam suñuy dem ñoo demee xel ànd noonu nag sécurité wax dëgg yàlla teewul nag commissaire yëpp yëg nañ ko am nañ seen i numéro dañuy woo à tout moment ne saa su ngeen amee lu ngi ki woo leen waye li ci ëpp itam ñun suñu biis bop dañuy protéger je protège protéger la victime et c'est bien loolu lañu jangal motax ci mbirum euh, protection ci hygiène kep kuy dem intervention di nga def li la war mo xam masque la mo xam gant la su jëree épi équipement de protection individuelle dang koy sol ci kaw ba ci suuf loolu mom tag na ci dañ koy def su leen beneen protection mo suñu sécurité aussi suñu gisé ne xamni ki du suñu malade gis na ni ki ñu jëri du koy am doom du ko tansu daan dañuy ñort ci mom li xew tay fièvre bi ndax signe yaa na ko wax ndax dañ koo jàng donc ci kii bi dafa am ñu ni alerté dañuy alerte district sanitaire bu Touba moom mooy ñëw beneen ambulance ndax saa suñu xamee ne victime malade bi rek du ma malade rek duñ ko jege li ñeel coow li juddu te séddaleem ceeb bi waral ko honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga di ñaawlu ñi nga xam ne dañu yëkkati ay kàddu yu bon di ko teg ci ministrement Mansour Faye Sénégalais yi dafa am lu ñu bàyyiwul xel mooy dafa am ay nit yoo xam ne seen bopp rek moo leen ñor saa yu ñu waxee boo leen dégloo kaw ba suuf ba ma ñuy taane seen bopp problème mais duñ wax njëriñul askan wi njëriñul askan wi mënut paase ñu arrêté lépp luy coowul politique te wax coowul li xew.